di ñaan rekk mboolem li mu ëmb ci ay yiw ak i tuyaaba yàlla ñu ko yàlla booleel waaye defal ñu ko ci haddiyee rasulullahi sallallahu alayhi wa moom mi nga xamante ne moo weer wi waaye itam manees nañu wax ne weer wi weeram la wa tabaarakallaahu ñu fas yéene ñëw ànd ak yéen ci seen émission bi ñuy tuddee ak tazkira fii ci Safina TV di ñaan rekk buur bi nga xamante ni lu waay tàmbali mu àgg daf ko neex yal nañu yàlla boole taawul ñu boppam waaye itam téeñalal ñu boppam ci daraja yonent bi aleyhi salaatu wassalaam fa tabaarakallaahu lépp itam tegu ci alquraanul karim ak sunna si yonent bi alayhi salaatu wassalaam ndax jullit ñaari tànk la yor di ci dox te ñaari tànk yooyu dañuy wax ni warta dox rekk lu muy daf ko wara a teg ci ñaari bërëb yi bërëb yooyu la muy tekki mooy la bërëb yooyu digle nga def ko waaye lamu la tere itam nga jéem koo moytandiku moo tax yéen ci junj rekk bërëb bu njëkk ba moo di alquraanul karim waaye bërëb bi ko ñaareel mooy xadiisu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon fi ñaar yooyu fi la war a teg tànkam mu koy orienté ci biir waaye itam di ko orienté itam si biti fa tabaaraka laasanul xaaliqiin ndax lépp lu mu ci mën a doon rek niñ koy waxe waxit lay doon ak lu ñuy waxaat waaye lañu wara wax yépp wax nañ ko waaye boo gisee ñi indi baatu tazkira muy fàttali boo demee ci biir alxuraan borom bi du deñ ay yooni yoon jaarale ko ci làmmiñu yonent bi aleyhi salaatu wassalaam di ko wax del fàttalee ndax fàttali gi ngay fàttali man naa jariñ doomu aadama bi waaye man naa jariñ itam ki nga xamante ni moo gëm yàlla waaye dana ca yokko itam ki nga xamante ni dafa fàtte woon kon fàtte ga mu fàtte nga ñëw fàttaliku dina ne ah kon kan man tuuti kon ma tarxiis ndax li may def nii kan maa ngi def loo xamante ni waruma ko woon a def donte la xamoon naa ko waaye da damaa fàtte ba ñëw di ko def kon ñi taxaw ne la kon loolu ngay def du noonu delluwaatal sa tànk demaat fa nga jóge woon fa tabaarakallaax la lëmb nag làmb ko mu bari lool macha allah ndax boo ñëwee ci misaal ci yonent bi rekk alayhi salaatu wassalaam mission génnul fàttali waaye ay naataangoy yonentam ñoom itam moo xam la ko tàmbalee ci suñu maam aadama ba ca ibrahima ak nuux ak di ko topp ba ci yonent bi mujj ñëw muy isa ibnu maryam ba ci yonent bi alayhi salaatu wassalaam ñoom ñépp seen mission du lenn rekk lu muy fàttali ndax jamono bu nekk dana am ñuy dëkke jamono ba ñooy dëkke jamono boobu nag ñoom ñooy defar bu jamono bi baaxee ci ñoom la waaye tam bu yàqoo itam aussi ci ñoom la ndax ñoom ñoom ñoo war a saytu ba mu baax bu ko defee buñ demee di ñay defar di defar doonte le néew na waaye ñay yàq ëpp ca jamono booba bu boobaa duñu def rekk lu muy yónni koo xamante ne dana dem ci ñoom di leen fàttali ngir lan xamal leen ne kat leen li ngeen nekk nii du nii nii la bu ko defee ñi mën a teggi seen tànk waaye dem topp yoon wi nga xamante ne mooy yoon wu baax muy ñoom ñépp seen mission génnul lool moo tax dangay ngay seen benn yonent bi fekkewul yeneeni jamonoy yonent te yàlla yónniwule woon ci yeneentu yooyu le lu ko waral mooy fekke wuñ ay yonentam maanaam fekkewul jamono jooja ndax bu dee suñ maam Ibrahima ñamu jamonoontale woon moo tax yàlla yebal ko si ñoom mu leen di woo di leen giide di leen gindi ala kulli xaal xattaa ba ci aadama moom itam ci aw ay doomam ay sëtam ak i sëtaatam tabaarakallahu mu leen di giide ba Idris ba tey yont yàlla nuux ñoom ñépp kenn ku ci nekk rek ña nga jamonoontale woon jamono booba dafa xatoon jamono booba dafa lëndëmoon nekk ci ay tolof tolof waaye bu ñépp nekkee ci ay tolof tolof du ñàkk ñoo xamante ne ñoom xëy na ñoom danañu génn ca loola ànd ak seen sago ba mën a gindi ñi nga xamante ne ñoo nekk ca tolof tolof yooyu le moo waral seen mission noonu lay demee kenn ku ci nekk rekk yàlla tànn leen ci seen biir ndax jamono bu nekk ak waxtu wu nekk rekk yàlla danay yabal nit walla ay nit yoo xamante ne ñooy doon ñu tedd ca nit ñooña waaye ñooy doon nit ñoo xamante ni seen jëf dafa rafet yàlla kontaan na ci jëf jooju ba bëgg doomu aadama yi mën sax ci jëf joojule waaye man leen a roy ci wàllu wax waaye itam man leen a roy ci wàllu yi wi nga xamante ne moo di wàllu jëf kon gis nga ne kon bi leen di yàlla di jël di leen yónni ngir ñiy mën a gindi seenu xeet yàlla jëlul ña gën a yées ca jamono boobu mu yónni leen yàlla du ko def toujours day xool rekk ña fa gën a baax mu ñëw tànn ci ñoom ne leen yéen yéen yéenay ay tànneef kon am naa si yéen yaakaar yaakaar naa ne bu ma leen yónnee ci seen naataango yi nga xamante ni yéen a bokk dëkk amaana bu ngeen àddoo ci seenu làmmeñ yu nga xamante ne ñoom nàmp nañ ko ba boo àddoo ñoom ñi xam ko xëy na bu ñu waxee dinañu mën a dellu siwaat ginnaaw moo tax bu dee kuy làkk ñi yabal ci ñoom kuy làkk moo xam bu dee arab ci misaal bu dee soose la ñi ñi yebal fi ci ñoom koo xamante ne soose la dégg bu dee tukkulóor ñi yebal koo xam ne tukkulóor la dégg waaw bu dee séréer ñi yebal koo xam ne séréer la dégg di ko def noonu rek ndax yàlla moo ko wax nee na du ma yebal benn yonent ci aw nit lu dul yonent booba may yebal ci ñoom dafay xam langue dëkk ba waaye itam moom bu waxee itam langue bi muy wax waa dëkk ba dañ koy xam kon yàlla dafa bëgg lu leer exemple du ñëw rek gis ne ñii ay soose lañ mu ñëw yebal fa euh, koo xamante ne pulaar la dégg déedéet yàlla buy yebal pulaar ca pulaar ya la koy yóbbu bu dee soose mu yebal koo xamante ne soose la dégg mais du ko jaxase ngir lan aw lay lay beñ mu am seen diggante ak borom bi subhanahu wa taala ndax yàlla moom kenn du ko yey tey doomu aadama yi ah, bari na si ñoo xamante ni fa tabaarakallaahu Eh, dañoo mën a indi ay lay lool lool moo tax lay yooyu yàlla teel koo dégager ba ëllëg ak biir bu la taajee teg la sa kanamu nawle yi nga jàkkaarloog borom bi jàkkaarloog doomu aadama yi yàlla di la àtte du am benn lay walla benn jam-jam boo xam ne di nga ko jël di ko jam sa digganteeg sa borom ndax bu fekki ni bii da ne ah mankat kat samay wéyjur nangam ak nangam ñooma ma waroon a sàmm ñoo ma waroon yar ñoo ma waroon a ya ya war ci yow yépp amaana ñoo ko waroon a def ci yow waaye mataluñ ko ñoom wéyjur yooyule a tabaarakallah waaye teewul kom ñooñu làqu nañ la waroon ci ñoom ci yow defuñu ko waaye itam amaat na ñeneen ñi ñuy tudde ay yonent walla ñoo xam ne ay boroomi xam-xam lañ ñoo xamante ne dañuy wax di gindi doomu aadama yi naan leen def leen lii moo baax waaye itam moytandiku leen lii baaxul bu ko defee ñu jéem a def ndigal yi waaye itam dal di bàyyi li nga xamante ne moo di ay tere bu ko defee ñoom ñooñu ñuy yabal nag tey bu fekki ni bii amoo lenn loo xamante ni loo mën a gaaral la sa digganteek sa boroom doo ko ne ah man kat ginnaaw say samay wéyjur li ñu waroon a def ci man defuñu ko waaye amoon na benn yonent boo yabaloon ci ñun waaye yonent bi nga yabaloon ci ñun day moom li muy làkk man dégguma ko man mi itam li may làkk moom déggu ko loolu yàlla teel na ko dégagé ba du am ba kenn ku ci nekk rek la ngay xam miin ko di ko wax wala nga koy jëfandikoo loolu la yàlla di yabale koo xamante ni dina ñëw miin loola xam loola waaye itam di la ci orienté ndax moom am na ci xam-xam boo xamante ni yow xamoo ko waaye itam jàng na itam loo xamante ne yow jàngoo ko waaye itam am na maqaama yoo xamante ni borom bi subhaanahu wa taala defal na ko yenkeel na ko ko te yow ci sa bopp yàlla joxula loolu yenkeelu la itam loolu kon bu ko defee loolu lépp ñi bàyyi ci xel bu baax a baax moo tax ñoom yonent yooyu seen rôle yooyu mooy fexe doomu aadama yooyu nga xamante ni ñoom la ñu dundandool ñi ñëw di leen giide di leen def leen di leen def loolu ñuy tudde at tazkira di leen fàttali ba ku ci naroon a tarxiis rek ñu ne la ah li ngay def baaxul wala li ngay daw ëpp na wàññindikul wala yokkal sa tànk ndax li ngay dox tuuti na itam wala itam yoon wi nga xamante ne moom nga soobu ñi ne la yoon wi du nii yóbbulwaat waneen yoon ndax nii mooy yoon wi nga xamante ne mooy yoonu siraatal mustaqim fa tabaarakallaahu ahsanul xaaliqiin kenn ku ci nekk ak ña nga jamoonalante muy ñëw rek di rogalaat toujours buñ demee ci biir alquraanul karim du deñ di ñu fàttali ñoom ñooñu seen rôle ak ci seen population yi nga xamante ne ñoom lañ jamono lool kenn ku ci nekk résultat bi yàlla doxale sa diggante ak ñoom ñooñu muy wàcc ba ci suñu yonent bi alayhi salaatu wassalaam boo demee alxuraan di ñuy ko leeralal ni mu doon dundandoo moom ak ay saxaabaam donte la ñun ci ay xeetam lañu bokk dundandoowuñu ñoom moom ci wàllu zahir waaye teewul ala kulli xaal saxaaba yooyu nga xam ne ñoo doon dundandoo moom maqaama ya ñu am ak garaat yee ñu am ak lañ leen santoon ca jamono booba ñi koy def ci wàllu ibadat muy wàllu jaamu yàlla yépp ala kulli xaal ñun ñiitam donte la fekkewuñ ay jamonoom itam euh, lañ leen war ci ñoom moo dellu itam war ñu ñun ñi itam waa ñu ne waaw bu fekk ni bii loolu am na ñun ak saxaaba yi ñun ñëpp ñoo bokk kenn ku ci nekk li war kii moo war ka ca des ñoom de am nañ sens boo xamante ni lépp loo xamante ne lu leen masaan a gaar ci seen wàllu diine ci seen wàllu jëflante alxuraan a ngay dox di wàcc di leen digal naan leen def leen lii moo baax di leen tere naan leen moytandiku leen lii baaxul waa kon kay ñoom dinañ ñu ëpp sens ndax ñun fekkewuñ yeneent bi àddu mu wax ñu koy dégg di ko joxalante ndax léeg-léeg da ciy seen koo xamante ne dafay am loo xamante ne xamu ko ci pénc mi ci sansé lay sol aw dàllam ne comme lii amuma ci xam-xam naa dem laaji ko gën ji bindeef muy yonent bi sallallahu alayhi wa sallam kon sens boobu ñoom ñooñu ko ëppale walla boog kenn am lu mu doon jëf jëf joo xam ne naka su noonu kenn ci ay moroomu saxaabaam moo koy wax ne ko yow de jëf jii ngay jëf yonent bi sallallahu alayhi bis jot na ma gis ku ko jëf mu tere ko ne bul def nii del def nii ak nii te pourtant kooku mu koy digal loola ba yonent bi di di tere jëf jooja moom fekkewu ko mais dafa am ku toogandoo yonent bi koo xam ne moom fekke woon na ko ba noonu la jël jëf joojule ak wax joojule yi baaxe ko moroomum saxaabaam yooyu yëpp waaye ala kulli xaal loolu lépp lii ci xilla bi mooy avant muy dem dafa bind bàyyil ñu waaye teewul wax na jëf na ñi teg ci suñuy bët ña ca tegoon seeni bët muy saxaaba ñoom ñooñu jëfandikoo nañ li leen yonent bi alayhi salaam digal ndax dañ daan àndandoo moom di defandoo ak moom di tegandoo moom di yëkkatee ak moom waaye tam mu jóge fi saxaaba yooyu jóge fi te ñu li ñu war suñu diggante ci yonent bi mooy li war saxaaba yi seen diggante ak ñoom waaye kon kay ñun bu fekk ni ba jamonoy alquran di wàcc ñun fekkewuñu ko ba yonente bi di wax ñun fekkewuñu ko ak yeneen ak yeneen ba muy jëf fekkewuñu ko kon ñun lan moo ñu mën a sawe ba ñu am comme ñoom maqaama yi ñu am wala garaat yi ñu am wala ñi koy defe comme ñoom sahaaba yooyu nañu ko doon defe yonente bi ne ah xanaa xamu leen ne kon man maay yonente bi nga xamante ni ci yónni gi maa mujj ñëw waaye maa fi jiitu ci yonente yi te maa leen di tëj ala kulli xaal dafa fekk ni ñi fi jiitu woon muy ca aadama ba ci yonte yàlla isa ñoom ñëpp dañ doon ubbi bunt bi rek li koy firnde mooy bu ma xasee dem kaneen dootul ñëw kon mooy war ne mbir mi sama mbir la maa koy ubbi maa koy tëj waaye ala kulli xaal lim ñi bàyyi ak saxaaba yi lañ doon dund du leen rek lu muy ñaar muy alquranul karim ak ay waxam ñi koy tudde xadiis yi yonent bi sallallahu alayhi wa ñaar yooyu rek diiran la mu fa nekk diiran 63 ans ya mu dund diggante Màkka ak Madina yépp génnewul ci ñaar yooyu alxuraan ak ay waxam muy sunna rasulullah sallallahu alayhi wa ay saxaabaam itam ñu doon dundandoo ak moom diiran la ñu dundandoo moom ñoom ñépp itam ala kulli haal kenn ku ci nekk la nga dund weesuwul rek lu muy def alxuraan ak sunna rasulullah sallallahu alayhi wa moo tax bi mu xamee ne kon moom bu fi jugee itam du tee mission bi dafay continuer ba àdduna bi di tukki ala kulli xaal te baneen yonentu dootul ñëwaat di andi laneen lu bees loo xamante ni àdduna bi dana ko soxlawoo wala jamono bi dana ko aajowoo saa bu jamono jotee pour ñi wàcc ab yonent bu loolu amee ne loolu amatul kom jeex na kon man maa fi taxawu ba kër bufte bi di wal kon naa fi bàyyi loo xamante ni bu ñu ko déggee rek fàttali ko ci rek dafay mel ni maa ngi toogandoog ñoom di wax ñi may dégg waaye di jëfitam ñu may gis moo tax mu ne leen ñaar yi ma leen fii bàyyi leel du lenn rek lu muy alxuraanul karim muy téere boroom bi nga xam ne yàlla moo ko wàcce ci moom yonent bi alayhi salaatu wassalaam mu doon itam ay waxam waaye tam mu doon itam loo xam ne mboolem lu àdduna bi soxla mu ngi ci biir alxuraan loolu ñuy tudd solution ci ci alxuraan la la la la fekk baax ku koy wër ba gis ko dootoo làmbatuwaat itam la neen maanaam kuy dem de di wut solution gis alxuraan moom yeneen yi ci des moom pare nga ci ndax boo saa yoo fi xee rek loo bëgg rek moom mu ngi ci moo tax yàlla joxo ñooñ ne ko maa naa fi kitaab min sey yàlla ne téere bii amul lenn lenn loo xamante ni lu ma ci bàyyi la mboolem lu ngeen di utiliser ci wàllu àdduna lu ngeen lu xam-xam soxla rek ci àdduna bi rek nee na bu ngeen ci demee da ngeen ko fi fekk fa tabaarakallah kon alquran jooju incha allahu danañu ci ànd ak yéen di ci fàttalante ndax lettre la comme boo xamante ni dañ koo jël rek jox ñu ko mais dana jaadu yellu itam mbokk moo xamante ni dañu jël benn lettre jox ko ko mais mu xam lan moo nekk ci biir lettre bi tey bala ngaa am jàmm moo xam sa mbokk mu nekk bitim réew walla fu mu ci mën a doon bind la lettre doo jël lettre boobu avant ngay xam lan la ci biir dem mobile ko teg ko nële déedéet waaw ku ñëw rek nga nekk diwkaay mu ñëw nga ne ko waaye xoolal sama lettre bi ndeysaan xoolal ni ni mu rafete ak fiñ ko dugal nii ak a taaru ndeysaan te yoo xamoo lu nekk ci biir lettre bi la du bari kon amaane sax xëy na pour nga koy wax doomu aadama yi wala nga koy wan sa mbokk yeeg yooyu la ca wan nga leen koy wan sax dara nekku ci boo leen ko waree wan waaye la ca jaadu mooy nga fexe ba jàng ci ci biir lettre bi xam li nekk ci biir lettre bi boo mënee jàng nga jàngal ko sa bopp mais boo ko mënta jàng itam aussi nga dem seet koo xamante ni euh, dina la ko mën a jàngal bu boobaa nga xam li nekk ci biir bu dee luy digle la nga jéem a topp la muy digle sa kemtalaay kartan bu dee loo xamante ne dala koy tere itam nga jéem a góorgóorlu rek ko bu fekk ni bii da nga ca daan def wala nga koy jëfandikoo loolu ñuy tere te nga gis ne ci biir lettre bi kat ne ndekete man li may jëf nii dañ ma koy tere baaxul nga jéem koo bàyyitu moytandiku loolu mooy illa bi waaye rek du caagin rek ñi ñëw jox la lettre nga ñëw teg ko noonu mu ne ñimmu ñu te jëriñoo ko jëriñu ko xamoo lu nekk ci biir nga ciy wootee ne jox nañ ma lettre nangam nangam te jëfandiku woo ko daanaka njariñ la bariwul mooy alquranul karim rek lettre la boo xam ne moo jóge ci borom bi subhanahu wa taala waaye wàcc si su yàlla ñëw jël ko nag am bërëb yi mu ko jaarale muy ca euh, lawxul mahfuus topp ko noonu ba ci yonent bi muy diggante diggante jibril ba ci yonent bi di ko topp bu ñëwee ba ci yonent bi mu ñëw àggañu ko ndax itam fa mu nekkoon rek bu fekk ni bii dafa jóge directement ñëw si ñun amaana duñu ko attan ndax léeg-léeg di nga seen nit di yuutu loo xamante ne ndekete gënul ci moom ndax bu fekk ni bii yow lii li war a ñëw ci yow attanoo loola nga ñëw jël lu ko duble bu boobaa bu jëwee da koy moñ xaate te ko tasaare ko te du jariñ dara moo tax bu dee ci wàllu ñii liggéey ci courant yee yu ci mel ni ko yooyu kenn ku ci nekk xam nañ bii ñaata la àttan lii ñaata la àttan ba boo ci defee lii lu ko ëpp da koy ñëw yàq ko doomu aadama bi noonu la mel diggante lettre boobu moo tax yàlla jëlu ko rek ñëw xëppandoo ko doomu aadama bi mais xoola diirub 23 ans yàlla di ko wàcce par tuut tuut par étape li nga xamante ne moom la ñuy jëfandikoo ba keram muy jeex ca alyawma akmaltu googu nga xamante ne moom la ñu yàlla subhanahu wa taala dal di leeral lool kon bu ko defee mu doon loo xamante ne euh, dim la rek loo xam ne lu ñuy jiital di ci wax li nga xamante ne moom la ñu fas yéene di ci ànd ak yéen muy at tazkira di fàttali waaye lan la ñuy fàttali alquraanul karim lan la ñuy fàttali waxi yonente bi alayhi salaatu wassalaam lan la ñuy fàttali waxi sahaaba yi lan la ñuy fàttali waxi taabiina yi lan la ñuy fàttali waxi suñu maam yu baax yi lan la ñuy fàttali waxi borom xam-xam yi te yooyu yépp boo ko xoolee kenn ku ci nekk sa wax rek boo ko boo boo ko delloo dafay ñëw daje ci alquran ak xadiis yi yonent bi alayhi salaatu wassalaam kon bu ko defee rek seen mbokk Libaas Diène euh, moo ci àndoon ak yéen fii ci Safina TV incha allahu rek seen mawdu doon li nga xamante ni moo di euh, tazkira fa tabarakallahu ñu fas yéene ci ñaan borom bi subhanahu wa ko bismillahi rahmaani rahim waaye itam àggal ci ak alhamdulillahi rabbil alamin ba lépp loo xamante ne àddu nañ ko lu ciy digle yàlla nañu ci jiitu ku ñëw fekk ñu ci ku dem bàyyi ñu waaye lépp loo xamante ne àddu nañ ko mu jëm ci wàllu tere itam yàlla bu ñu ci kenn fekki itam te bu ñu ko fekki loolu mooy li nga xamante ne moo xajoon ci waxtu wi dañ koy tënku foofu rek lu jiwa jeexul jugu fa di ñaan yàlla mu mayaan ñu ay bis bi dellu si insha allahu ñu continuer ko suñ programme kon lu si jub rek ñi xam ne mbaaxu yàlla la lu si dëng ne rek matadik doomu aadama ñu ngi leen koy jéggulu wa axiru daawaana an alhamdulillah wasalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu